daleen ak jàmm mel na ni coow li dox ci diggante Diop ISEG ak Dieyna balde bu seen Petit Gallé xaajagul bay jeex loolu li koy firndeel moo di ñoom ñaar moo di Diop ak ki nga xamante ni moo di Dieyna bu Sen Petit Gallé demoon nañ foofee ca Fann ngir amal fa ab test loolu nekk ab occasion boo xamante ni dina permettre ñu xam ndax ki nga xamante ni moo di Mamadou Diop borom ISEG ëmb bi nga xamante ni Dieyna Baldé mi ngi ko koy jiiñ dëgg la wala du dëgg mais malheureusement boobule test ADN mujjeewul am ndax cabinet médical bi waroon a amal boobule test dafa xamal enquêteurs yi li gën a wóor mooy ñu xaar ba bébé bi juddu ñu daal di jël ADN boole ko ak croiser ko ak ADN wu pour ñu am lu gën a leer donc mu mel ni mbir mi kon dara leeragu si loolu moo waral ba enquêteurs yi daal di exploiter les appels téléphoniques yi di nga xamante ni doxoon na ci diggante Diop Iseg ak Dieyna Baldé ginnaaw réquisition yooyu ñu def ci njàppandalu benn opérateur bu nekk ci biir réew mi kii di Mamadou Diop Iseg dafa yor benn numéro boo xamante ni numéro sax ci la doon jokkoowee ak Mariama Balde waaye rek li doy waar moo di téléphone boobu la kenn mënul teg ba ginnaaw loolu tamit enquêteurs yi yamuñ ñu ci ndax dañoo saisir téléphonu Dieyna Balde ci boobu lay téléphone sax ci lañ fekk message boo xamante ni Dieyna envoyé na ko Mamadou Diop naan ko ci je t'aime duma la mës a bàyyi rax ci dolli ki nga xamante ni moo ngi wuyoo ci turu bu ndaw nekk tamit ancienne bu seen Petit Gallé moom tamit xamle ni xamle na ni doon recevoir ay avance directeur u ISEG loolu ginnaaw bi nga xamante ni ki di Dieyna Medina yëgal na bu ndaw ni ko kii di Diop ISEC daf koo ëmbal ba pare bañ ko ci la ñaari ancienne seen petit gàlle yi bu ndaw ak ki nga xamante ni moo di Dieyna balde dal di décider tendre piège ki nga xamante ni moo di Diop ISEC jaarale ko ci seen xarit bi di wuyoo ci turu Abibatou Sy di ab cousine ci Dieyna ba Baldé mu nekk ab piège boo xamante ni dox na ndax ki nga xamante ni moo di di Diop ISEC refusé wut avance su Abibatou Sy ca noonu nag la ko abibatu daal di invité ci ab appartement meublé ci complicité Dieyna Baldé ak bu ndaw foofee sax la ko Dieyna Baldé daal di filmer patron ISEG bi nag di Mamadou Diop déféré nañ ko ca parquet moom liñ koy toppee moo di incitation à la débauche ak détournement de mineur suivi de grossesse laaj bi samp nag mooy ndax ki nga xamante ni moo di Dieyna balde bi batu ba bu ndaw ak Ali Baldé di mag ci Dieyna ndax yoon dina leen topp collecte illicite de données personnelles lu ci mën di am dinañ ko xam ci fan yi nu jëm